jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen ngi ci bawal info point net site d'information générale tey nag mbokk yi dañoo bëgg a dikk ci kàddu yi nga xamante ni baax Barthélémy Dias yëkkati na ko ndax tey ci dimanche ci 23 euh, février dañ ko invité ci benn rajo mu yëkkati fay kàddu wax ne Guy Marius Sagna bu ñu ko tëjee si kaso bi li mu nekk katolik moo tax kàddu yooyu nag dafa nekk kàddu yoo xam ne yu xeebu la kàddu yoo xam ne yu ñàkk ab dayo la te du kàddu yu nit ki nag mën nga soutenir nit nit ki mën nga jàppale nit waaye ak kàddu yi nga xamante ni moom nga yëkkati waaye kàddu yi dafay firndeel kon ne baax Barthélémy Diaz amatul argument ngir fair face ak régime bi nga xamante ni tey mooy régime mu Macky Sall Guy maxi Sagna bi nga xamante ni moom lañ tëj ci kaso bi bëri na tey ñoo xamante ni tey ñaawlu nañ ko bëri na ñoo xamante ni ànduñu si waaye musuñu yëkkati kàddu yu xeeboo comme ni kàddu yi Barthélémy Diaz yëkkati wax ne li muy catholique moo tax ñu tëj ko ci kaso bi te loolu du kàddu yoo xamante ni tey yu kaweel la kàddu yu koy suufeel la kàddu yuy tax askan wi xeeb ko la te kàddu la yoo xamante ni tamit église bi duñu ko dégg benn yoon ndax église bi ay nitu jàmm ñoo ko ëmb ay nit lañ yoo xamante ne ñu responsable lañ ay nit yoo xamante ni tey yu ñu naw lañ ndax Barthélémy Dias nee na Guy Marius Sagna bu doon mbàkke-mbàkke la wala mu sant ci famille si wala mu bokk ci fami ñi sant laay wala yeneen kër kilifa diine yi tey lii firndeel ne Barthélémy Dias li mu wax waxi xale la waxi ku amatul argument la waxi ku réer la waxi kuy ñàkkal boppam fayda la ñu baree baree bari dinañ ko si xeeb du waxi nituk jàmm waxi nituk ay la Barthélémy Dias li mu wax lii firndeel ne yéen wun maanaa Karim Wade ñaata at la def ci kaso bi Karim Wade kan mooy baayam Abdoulaye Wade gën a nekk ab taalibe murit Abdoulaye Wade bi mu nekk njiitu réew mi ñaata yoon la fësal ne moom ab murit la ba ñu bari ŋàññu ko si te pourtant jël nañ doomam tëj ko si kasu bi xanaa kon li mu nekk murit la tey Khalifa Ababacar Sall kan moo ko gën a nekk ab tiijaan Khalifa Ababacar Sall kan moo koy gën a pratiquer Khalifa Sall ñaata at lañu ko tëj si kasu bi Mbaye Touré nekk taalibe Serigne Mountakha boo xamante ni ñépp ràññee nañ ko Mbaye Touré ñaata at lañ ko tëj si kasu bi xanaa kon murit moom moo tax ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni tëj nañ leen ci kasu bi maanaam lu ne fànn kenn du ko jeex lii nag kàddu yi Barthélémy Dias yëkkati ne Guy Marius Sagna li tax ñu tëj ko ci kaso bi li mu nekk catholique moo tax wax ju doy di la wax ju ñàkk fayda la te du wax joo xam ne dafa yëkkati Barthélémy Dias nit nag mën naa opposé waaye dafay fekk mu nekk ab républicain. fi ñu koy jeexale nag mooy kàddu yi nga xamante ni Barthélémy Dias yëkkati na ko wax ne Guy Marius li mu nekk catholique moo tax ñu tëj ko ci kaso bi man gaw ma ne Barthélémy Dias jamono ji ànd na ak sagoom wala ànd na ak xelam ndax kàddu la yoo xamante ni yu xeebu la te ñu baree bari ñu si am mbetteel ndax xaaruñu ko woon ci Barthélémy Dias bien vrai que yàgg naa wax ay wax ju rëy yàgg naa wax ay toj-toj waaye jamono ci ak kàddu yi mu yëkkati gëw ma ne Barthélémy Dias ànd na ak sagoom wala ak xelam. baolinfo.net site d'information générale baolinfo.net arobase gmail.com baolinfo.net informés en temps réel.